non empêché Guinéens ñu dugg dafa am ay accords yu signé dans le cadre de la CEDEAO la libre circulation des personnes et des biens mhm. boo amoon armée bi gëna puissante ci monde bi nga tek ko ci frontières yi du té Guinéen bi su bëggé dugg Sénégal en tant que Guinéen day dugg mënoo ko teree dugg Sénégal donc problème bi mais imam buñ ko teree dina dugg parce que euh, ñi ñu fay teg dañ leen di fay xaalis rek ñu dugg non non non mais non dugg Sénégal ak dugg Guinée dem Mali c'est pas mhm. interdit c'est c'est facile

fexe ba. Mm-hmm. étranger waxuma guinéen rek mais étranger bu nek Sénégal nga am titre de séjour. Mm-hmm. c'est important ñu mën na a fichier parce que yow Sénégalais bi yow Sénégalais bi yow da nga am carte d'identité identité Sénégalais bi dañ ko fichier. Mm-hmm. ki dëkk ci réew mi dañ ko fichier utal ko carte d'identité pour mën koo xam pour mën koo topp pour sécurité ñu utal ko carte d'identité identité utal ko numéro pour sécurité nationale yow mi ci réew mi étranger bi jóge ci am réew moom dugg ci réew mi. di mm-hmm. dem fu ko neex di def lu ko neex kenn mënu koo fichier amul lenn loo ko mën a toppee bu jëloon carte d'identité guinéen bàyyi ko Guinée dugg Sénégal amul benn këyit bu nekk ci moom mm-hmm. nga bàyyi ko ci réew mi mu dugg fu ko neex bu rayee fii bu subaa mu fiis fële di jaay yàpp fii def lu ko neex amul benn identité ñu bàyyi ko mi tambambal ñu ne ñun ay panafricain lañ ça c'est de l'anarchie mm-hmm. mais léegi ana ana yi nag kon moom laay wax ana frontière yi non non frontière yi jotu li may maa yaa ngi confondre frontière yi frontière mhm. you jotewul avec libre circulation frontière pour question de guerre là, wax les gardes mais en temps de paix nous sommes en paix mhm. Sénégal Guinée Guinée frontière mhm. frontière c'est très intéressant avant tout titre <laughs> mais en ce moment ñu ngi si biir Sénégal mais ñu ngi si pour génn fa génnaguñ fa de. libre circulation buñ teg la maintenant libre circulation boobu nag libre circulation boobu tekkiwul lu waay neex def libre circulation mooy mën ngaa circuler. Mhm. waaye nag dañ lay identifier da ngay am papier bu la mën a permettre nga circuler nit du circuler sans papier nit sans papier amul ci àdduna bi. nit ñëpp am mhm. papier nit ku amul papier danger la. ak foo mhm. mën a bokk foo mën a dëkk. sénégalais yi nekk Europe yi amuñu papier danger lañu ñu ci circuit dara. Mmh. duñ leen boole ci dara ay clandestin. buñ leen jàppee dañuy ñibbi seen dëkk. Mmh. Euh, maa ngi wàcc. loolu laay wax ci sénégalais bi nekk Europe Espagne ak France te amul këyit. Mmh. français boobu tamit sénégalais boobu tamit li may wax ci guinéen bi nekk Sénégal. merci moom laay wax sénégalais bi. amul amul différence ah. état yi dañuy organiser Mm-hmm. kenn ku ci nekk dañuy eh, eh, ah, parce que imaam li muy wax. Mm-hmm. imaam li muy wax. Mm. c'est exact c'est ça. Mm-hmm. parce que libre circulation boobu. CEDEAO mu ngi la ko may pendant quatre-vingt-dix jours quatre trois mois. gis nga quatre-vingt-dix jours yooyu bu jeexee. da nga war a dem sa ambassade nga demander carte consulaire. carte consulaire boobu moo permettre. Mm-hmm. nga am assi pour toog boo fi rombee quatre-vingt-dix jours tu vas payer quatre séjours da ngay dagg di mm-hmm. quatre séjours mm-hmm. léegi nag dafa am loo xam ne ku mel ni ay imam nii ñi na xam ne dañuy yéeg si live yi wala ñuy déglu souvent bu ñuy wax tamit dañ leen bàyyi ñiy développé euh, souvent damay dégg ñu ne ñenn ñi di wax nañuy raxas mmh. génn leen parce que loi Sénégal gis nga mmh. ñi fi jaar yëpp comme les autorités gis nga buñu ñu appliqué woon loi yi am na ñoo xam ne ñooy mmh. génnal seen bopp parce que pour nga am quatre séjours loi li mu wax il faut nga am contrat de travail un wala nga am jukaay bu lay may nga toog fii pour ande quatre séjours c'est-à-dire souvent nañuy leeral gal yi ak les lois ak les mm-hmm. textes yi nga xam ne moom moo la loi bi yoon bi na yëg ñi c' est pas comme ça mm-hmm. parce que tamit mënoo ko yor nga ne du am immigré mais na fekk mm-hmm. immigré bi amal njëriñ dëkk bi te politique boobu dafa war a mën a dimbali état ñun en tant que ay citoyen sénégalais li ñuy def parce que ñu ngi bëgg a dimbali état si li nga xam ne moom mooy si ay ressources ak ay revenus parce que mm. buñu jëlé mesure yi nga xamné ne Sénégal yi la demandé en tant que ay Sénégalais demande nationale dina leen permettre liñu gouverner mu gëna stable mu gëna jaar yoon. Mm-hmm. parce que tamit am na koo xam fa tollo amna fu xamné ay sénégalais ñoy jóg ta tamit jox nay alerte ñi fi nek xamal liñ bëgg mm-hmm. suñu dëkk. té man ak yàqin dama gëm né dañ koy appliquer lolu c'est mm-hmm. sûr am nga ko ngeen cité sank un ben gendarme bo xam ne mu ngi sol tenue gendarme bu mhm. Sénégal di mhm. demandé di waxaat di manifester wu dafa faire benen peuple mhm. bu d'origine may sa way amna lo loo munu mako sax wax ci panel bi parce que suma ko waxee parce que gis nga mouvement aar sunu khalil Aliou Aliou Dakar ones. déglu rek mo daga mhm. ah waaw déglu ma la. daga on est 700 mhm. et quelques personnes waxuma li nek gum si région yi mais mouvement bu mhm. nek Dakar mais ñi nga xam ne estatu statut mayu la ñuy wax ci panel mais ay sénégalais lañ comme ñun mais pourtant ci bir mouvement bi y a des juges il y a des policiers il y a des gendarmes il y a ah des avocats mais ça su ne lu ñuy bëgg a wax ak lu ñuy bëgg tek comme rapport wala bëgg jël mm-hmm. ben, wacc ben intervention dinañ jël PV ñi nga mm-hmm. xamné ñom ñoy les responsables des membres du bureau ñi jox leen PV yi wax leen ko en privé man tay ji mm-hmm. toute la journée j'ai parlé avec trois gendarmes té ñu ngi ci panel bi ak ben policier mais ñom li ñi def xamné nañ ko te dëkk bi dafa am yoon budul dul woon sax benen nationalité en tant que sénégalais gis nga li tani bi mu may sol yoon mayu ko mm-hmm. muy dugal boppam fi nga xam ne mooy réseaux sociaux yi di manifester wala muy wane mm-hmm. naka su dul noonu mm-hmm. comprendre nga mais di gis nga souvent <laughs> sa waay des fois gars yi dañuy toog di wax rek mais xamuñu sax li ñuy wax mais nag ñi nga xam ne dañoo am ay argument ñi nga am argument di wax comme genre imam yi di ak ñeneen ak ñeneen souvent live souvent li may wax rek laay waxaat télévision kenn seetaan ko kon ba bu nit hmm. defee ay live ba nit ñi toog di déglu wala di ko hmm. tapoter. Hmm. kon débat bu intéressant mu ngi si. man du ma rek du ma ko seetaan parce que xam nga lu tax. man démb li ñu def le 21 dimanche passé li ñu def am na ñetti télévision yu ñëw. 2S ñëw na Sen TV ñëw na. beneen leeral TV ñëw na mais y a deux sites internet parce que site internet yi ñuy liggéey ak les télévisions c'est pas pare parce que ñom dañuy jël défar rek sanni la lien bi biñ ko mm-hmm. sànnee lien bi ñi sànni ko ci biir plateforme mouvement art sunu gaal bu Dakar tous les liveurs tous les tiktokers tas nañ ko ci tous les plateformes. Mm-hmm. ñi def deux jours ma interpellé le responsable mané ko mais yow assemblée générale bi jaarogu si télévision yi lundi laa ko woo mu ne ma si télévision yi man dama dama am surprise bu ngann ma ne ko lutax ma ne mun na ma seen mouvement bi naka yéen plateforme yëpp li ñu war a dugal yéen dugal seen tiktokers yi dugal nañ ko ak seen liveurs yi parce que liggéey bi ñuy def am na sérieux mm-hmm. parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ mm-hmm. te kenn ñu bëgg yóbbu fu ñu bëggul te ñi fi toog imaam wax na ko sànq ñoo leen fi teg ñoo leen mm-hmm. fal en tant que ay sénégalais amul benn nationalité bu jógee fee fal leen ba ñu ñëwee pour voter les nationalistes ak les sénégalais dañ leen barrer la route kon bok ku nekk si yéen. xaleel xaleel ak képp ku munti doon ku nek na nga am confiance yow. waaw xaleel mën nga wax boy yi mm. ci suuf. guiné ñan ñoo remplacé Sénégal ñen ñoo ëppoon Sénégal avant guiné mm. mm. Guinée. Mauritanie la mo la fa jëlé moy moy moy moy moy événement naar voilà foofu foofu am na lu ma fa bëgg wax c'est c'est important voilà ci point bu kii continuer bul teggi tànk. non d' accord d' accord d' accord d' xam nga foofu am na loo xam ne bëggoon naa ko wax sax relancer le ma merci parce que gis nga. man du ma Guinée ba ba ay continuer la ñoom ma nekk Guinée te aw ma mbokk bu nduru Guinée nga wax kon bu bu nekk fii di xeex ak man ak ñoom seen ñun xeexuñu dañuy waxtaan. débat non non non non idi idi idi idi ne non garaawul ma gis nga est-ce que man la Khalil est-ce que yow yaa defee ko voilà léegi li nga xam ne amoon li nga xam ne moo amoon quatre-vingt-neuf li amoon quatre-vingt-neuf loolu si benn circonstance la amee woon mais yàlla ah, parce que dañoo toll si benn ñoo on est vingt et unième siècle te sénégalais ku ko xam xam ko si respect ak li nga xam ne moom intelligence te y a beaucoup de sénégalais qui vit ailleurs en étranger ak fi ñu ñu bëgg woo duñ fa ñëw mukk jamais de la vie parce que ñun ñu bàyyi xel ñi nekk en étranger man j'ai parlé beaucoup de sénégalais ñi nga xam ne ñuy si diaspora bi parce que tamit li ñu bëgg a def dañ ko bëgg a def ak intelligence ak méthode ak technique sans blesser personne benn nationalité te li ñu bëgg dinañ ko am suñu dëkk tey jii imaginer leen yéen en tant que ay sénégalais ñu xëy rek daj daj dal ci benn communauté wala benn nationalité attaqué leen mais sénégalais yi nekk ailleurs gars yi dinañ leen wax mais yéen seen peuple vous êtes des racistes vous êtes des xénophobes li ñuy taxé noonu duñ ko nangu te monde entier Sénégal rek moy doxee ni dafa jot ñi dindi ko amna fo foo tamit il fallait que ñom ñi xam ko loi Sénégal dafa protéger lépp parce que fi dañ na la du droit du sol c'est du droit du sang il faut nga am nationalité sénégalaise pour am titre foncier war nga am un bail bo nekkee un étranger permis d'occupation nga am da ngay amé audace di déplacé wu di demande ji carte séjour di ko dagg permis d'occupation boobu bu ñu la ko joxee pour nga tabax da nga war a di fay fa nga dëkk y a des lois ici. Mhm. mais amuñu ay zom yu fi njëkk yàgg a jaar pour appliquer léegi nag bu ñu xeex ba benn indi beneen régime bu ñu fexee ba indi beneen régime ñun xam na li ñuy def de. Mhm. li ñuy def nag en tant que ay sénégalais. ça ci intelligence saa su ne lañ koy teg ak ci ay méthode ak technique ku foog ne sénégalais yi ñu ngi nelaw yaa ngi nax sa bopp ñoom dañoo amoon benn calendrier ak benn objectif mais sénégalais dina xam li nga bëgg ak fi nga bëgg jëm mais bu ñu jógee pour barrer la la route c'est très facile mooy li ngay wax si li nga xam ne moom mooy benn xeet bi fi nekkoon stanlew fu am ay boutique am fi ay kër Mm-hmm. am fi ay mm-hmm. boutique am fi ay kër mais ana seen kër yi perte ñu ko parce que dëgg gandu tabax gandu tabax sa te loi yi dafa protéger Séné loi dëkk bi dafa protéger Sénégal. il faut ñu mais gan bu bu ay homme politique. mais xam nga ku ñëw di tabax rek da ngaa xamul mais boo xamee loi yi parce que mm-hmm. am na feneen foo xam ne bëgg naa fi ñëw mais sa ay sénégalais ngeen de il faut ngeen xam li xew li xew nag mm-hmm. kenn ku nekk si yéen da ko war a xam mais y a mm-hmm. des boutiques modernes yuy juddu Sénégal waaye fu ñu demee ba Amadou Ba ñi koy exposé ay select la ba Amadou Ba <laughs> mais Khalil Khalil en ce moment nañu joxe ay ay solutions ñu ngi répété quoi ñu ngi tourné autour du pot ah. solution xam nga ñun bu ñu mënee wàcc sax am na yeneen ñoo xam ne mhm. mën aussi ñu joxe solution parce que là ñu avancé boo leen paree rek damay coupé voilà ah, on tourne autour du pot quoi waa léegi yan solution wax solution man dama man dama bëgg a wàcc quoi parce que dafa bëri dafa bëri solution bi

gis nga Sénégal yi yor boutique te am te ay jeunes filles ñoo koy jox yor te mu ngi fonctionner normal mais man fi ma dëkk les boutiques sénégalais ñoo gën a gis seen bopp fi nga xam ne mooy les boutiques de rek loolu ay sénégalais ñoo koy liggéey. mais nag xale sax xale xale xale première fois. question sur ok kan mooy jiit kan mooy jiite mouvement bi mouvement bi le président il s'appelle Moussa Samb man Khalil je suis le coordonnateur hmm. am na trésorier am na vice président hmm. comprendre nga c'est très organisé ñu nawlante suñu biir nag xam li ñuy def xam nga mouvement bu judd même pas quatre mois muy ravasé bu yaatu ba dem ci région yi. mu ah yoon kon kon yéen. xam nga lu ko waral mouvement bi IAA. non non question bi question bi. il travaille avec qui il travaille avec qui il travaille avec le ministre de l'intérieur il travaille avec quel ministère la seen mouvement bi ngeen occupé quoi parce que dañ lay wax benn bu ma neexee mel mouvement rëbb dëmm. waaw il travaille avec qui lan mooy rôle am. mais ça va laa lay mais Idi yow xanaa doo dégg. ñun dañuy liggéey pour le pour le Sénégal xam nga li ñuy liggéey pour le Sénégal xam nga mooy lan d'abord loi yi fi nekk comme carte suñu autorité ñu mun ko exposer fi nga xam ne moom mooy Sénégal appliqué ko benn si samay kàddu xëy na déggoo ko sànq nee naa la période campagne bi ñun xamoon nañ ki nga xam ne mooy président Diomaye day ñëw en pouvoir moo tax suñu xam ne moom mooy lépp li nga xam ne mooy xaatim nañ ko tënk ko si kayit

kenn waru fee dugg saaga kenn waru fee dugg saaga ma dañuy waxtaan débat bi bu nekkee ab benn dof boo xam ne dafay nekk di saaga nit ñi man defee wàcc ma nga def modérateur saaga ma la ñu wax fii kenn moo tax moo tax nit ñi taxaw di Sénégal ah. euh, saaga du argument mais imam ziar naa la man maa ngi wàcc merci waay Khalil kontaan nañ vraiment. li muy wax xam nga waaw moom depuis. mais yow waaw moom maa maa lay dégg. aar mouvement la bu importance. mais mais bi kii imam. waaw y' a beaucoup de personnes. moo imam y' a beaucoup de personnes en diaspora ñu ngi ci biir y a beaucoup de personnes fépp foo xool na muy Congo muy muy Gabon muy Italie muy France fépp non non non non non non non non non xam nga patriotisme ak nationalisme ñoo bokk ñoo bokk bàyyi mais bokkuñu ndey mhm. patriotisme ak nationalisme dañoo dañoo ay doom yu bàyyi lañ loolu nag waxin la moo tax mouvement la boo xam ne ku ko upp mën naa boy ndax dafay dafay dafay yëngal reenu xol ñi bëgg réew mi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg am leen Sénégal jaral ñooñu il faut que ñu bokk ci mouvement bi taxaw jóg taxaw kon mbir la boo xam ne ku yebu teel ci bàyyi xel teel ko jàppale teel a ànd ak moom parce que bu ñu amee méthode am organisation xam fiñ jëm mën nañ dem fu sori les nationalistes la mais nag dafa laaj ñu bañ a dugg ci ay pièges yu ñu ci bari ño ñi ci ngay xeexal ci ngay xeex ci yàq nga di ko xeex mhm. moom da lay piège pour dugal la ci gaamu da nga ñoo bañ. da nga mhm. beddi xeet moom foofu la lay bëgg dugal pour yàq sa liggéey. benn bu wàccee rek naa jël changement imam continue. Mhm. moo tax il faut que ñu éviter loolu. ci mhm. mouvement bi nga xam ne mooy aar suñu Sénégal bi ngeen taxaw muy mouvement boo xam ne man personnellement je l' man dama koy encouragé parce mhm. que initiative bu am doole la parce que ay nationalistes lañ le nationalisme ça ne il faut mhm. d' ngeen définir c' est quoi le nationalisme parce que ah, nationalisme mhm. déglu naa keroog seen soo bi yéen nañu ma ko seetaan ko mais bu ngeen amatee na ko bind définir ko am na benn pas bu gis mu jël fa parole benn góor gu fa jël parole wax ku am solo la waxi mag te lii la ma wax daanaka loolu la fa wax ne bu ñu nangu dugg ci ay affaire waasoo xeetoo yoy ñu yàq suñu liggéey ci ay almagam te mhm. loolu buñ ko buñ ko bëggee bañ il faut que ñu définir suñu objectif philosophie li tax ñuy xeex objet bi lan la mhm. mooy ñu lan moy nationalisme nationalisme bi ngeen di woote moom ngeen njëkk a définir moy lan parce que nationalisme mhm. nekkul bañ ki nga xamné bokul ak yow réew loolu du nationalisme nationalisme moy nga préférer sa bop li olof nan mbay ki sa weewu tànk

nga seddu wala sax ñu ñu bokk seddu waaye yow ngay jël ñun ñi ñak loolu mom dafa wara jeex réew mi te réew mi jambur ñu duñ ko tabax parce que bala nga xam différence jambur ak ki dëkk ci réew mi réew mi takkon tay ñu attaquer ñu guerre ci ngay xam ñan ñoo dëkk ci réew mi ak ñu dëkk ci réew mi hmm bu réew mi nekkon ci ay jafé jafé ci ngay xam ñan ñoo dëkk ci réew mi ak ñu dëkk ci réew mi ñu dañ xex pour bëgg nguur gu baax ñooñu ci réew mi lañu dëkk kon mënu ñoo yamale ku dëkk ci réew mi ak ku dëkkul ci réew mi képp ku koy wax amalgame ngay indi anarchie ngay indi il faut que mu leer mhm. les nationaux et les étrangers dans tous les pays du monde dafa war a leer loolu yéen waa aar Sénégal da ngeen ko war a dind ci këyit définir ko ba mu leer ngeen def ko ci panel yi ñëpp lire ko communication mhm. bu mag la laaj ngeen def une une définition claire de vos objectifs définir mhm. les sémantiques mu leer nañ ñu xam ne li ngeen di xeex du bañeel du bañ tout ça mais li ngeen di xeex mooy ñun sénégalais merci imam si leeral yi macha allah suñu bopp moo ñu gënal bala mhm. ñu bëgg bañu kenn waaye mbëggeel gi ñuy am ci ku mënti doon ci suñu bopp lañ koy njëkke bëgg sa bopp d'abord bëgg toog a bëgg keneen loolu mhm. loolu loolu loolu loolu loolu lu naturel la mhm. moo tax ma déggee paa di ko paa boobu wax na ko loolu bàyyi leen ci xel définir leen ko ngeen théoriser ko le nationalisme bu mu nekk benn concept lu ngeen wax nii rek après ku nekk dugg ci kenn ku ne am noo ko déggee tëkk ba nga xam ne ku ci waxate nga ne ko yow xam nga lu nationalisme mu leen nga tekkil ko ko mu xam lan la nga xam ne kenn du leen yóbbu kër yaama di dax du mm-hmm. leen mm-hmm. lu ama am solo la parce que man dama gëm fondamentalement imam merci imam mm-hmm. loolu dëgg man maa ngi wàcc pël pour nga jël Sinisa parce que Sinisa waaw d' accord gis nga comprendre voilà parce que bu jëlal Syniza man maa ngi waaj ànd pour ah, mu jox ko place ba ñun gis nañ tous les liveurs yo pël saa yoo indee saa yoo live gis nga ak say vidéo yi ngay def yëpp mu ngi ci panel aar sunu gaal bu Dakar te Dakar panel bi sept cent et quelques personnes la saa su ne lay suivre voilà merci jërëjëf merci xadim mais mais mais imam jërëjëf kàddu am na solo boo wàccee rek ma dugal seen mhm. ziar imam imam sànq da nga waxe ay solution imam imam am na benn xeex imam imam mhm. am na benn xeex bu ma la bëgg a woo de neel bi Macky Sall yi ñu ngi leen di dugal police ñu ngi leen di dugal biir police maa ngi ciy xeex ba ba léegi ñu ngi saaga sama ndey ñoom ñooñu ah, xeex boobu nag bëgg naa leen bëgg naa leen dugal am nañu fi liggéey ci suuf loolu loolu am nañu ci ay élément dugal nag nañ ko yuuxu ci kaw ok man maa ngi yuux rek ñu may saaga ndey. ok <laughs> waaw mais amul problème léegi ñoom solution yi ma doon wax. mais man li ma bëggoon mooy. Mm-hmm. Ah, des solutions à court terme Sans solutions yi nga wax yëpp. c'est des solutions dans deux ans quatre ans six ans huit ans mais dama bëgg des solutions dans trois mois. il mois douze mois. imaam fixé gul de dafa ne solution. voilà joxe gu ma date. non solution yooyu c'est des solutions à long terme laa wax. man des solutions à court terme. dañ koo dagg solution yi sax commencé woon na ko développé lu am solo lay wax man xoolal jëm man dama bëgg imam buy développé lu mu kenn dagg ko mais xoolal lu am solo de tout le fichier des cartes d'identité ñu tëggaat ko Sénégal yëpp dem yees lu ci seen carte d'identité yi ñu teg ay conditions yoo xam ne il faut que état civil bi déjà mu am lu ñu tudde copie intégrale ci say parent sa coupe intégrale bopp ak sa certificat de nationalité bopp nga xam ne li mm. daf kii moom sénégalais la parce que papaam wala yaayam sénégalais la wala maamam wala am na ko mu nekk lu leer nga xam ne carte d'identité yooyu su génnee day nekk parce que état ñëw na léegi. nee nañ dañuy digitaliser mais imam loolu boo ko defee am na sénégalais yu dul am carte tax duñ ko am. parce que bu fekkee ni seen am na ñoo xamante ne seen papier parent yi dafa réer xamuñu si dara. pourtant sànq jox na la si pourtant sànq jox na la si idée peut-être yaa ko bàyyiwul xel. ah xëy na waaw sa papier mhm. papier parent bu réeree mais papier bi amna fumu fu papa sa parent fan la ko won hmm non man waxuma ci waxuma ci dak mais mais ci village yi. non mais village yi ñom d' accord mais village yi amna ay communes ñi nga xamné dañu am problème ak sen papier parents yi on a ce qu'on appelle des juges dans les tribunaux ñom hmm. juges yi man nañu décider. hmm à la place ñom jox la national sénégalais de suivant des enquêtes ñu def lolu sa papier réeree tribunal moo koy lijjanti. cas mhm. yooyu tribunal moo ko liggéey loi bi dafa prévoir lépp léegi ma doon wax solution bi bu ñu defaree carte yooyu yu bees mhm. lay nekk deuxième solution bi maa ngi wax ne mhm. mouvement bi aar suñu Sénégal bi ñu ngi law la comme ni mu ko waxee macha allah euh, am na campagne de sensibilisation bu ñu war a def am na organisation ñu war def mais nañu am ambition aussi ci di xir sen ñi nga xamne ñoy un di fekk ci ci ay métier di leen orienté mm-hmm. aussi ci philosophie ñuy entreprendre mm-hmm. c'est important nous mm-hmm. avons tamit nañuy dem ci les commerçants sénégalais amna ben syndicat wala ben association boo xamne ay jeunes sénégalais ñoko ko géré yoo xam ne dañu ñëw ci biir commerce bi ak industrie bi fekk fi ay naaru libanais ak ay étranger sénégalais yi ñu ngi xeex ak ñoom ba actuellement sénégalais yi ñu ngi nangu secteur yu bari yoo xam ne ay libanais ñoo fa nekkoon ak ay tubaab mm-hmm. kon aar Sénégal bi dañu war a dem ci industriel sénégalais yooyu les sénégalais yi nga xam ne ñu ngi dans le secteur de l'économie mm-hmm. di investir mm-hmm. dans l'industrie et dans l'économie ñoom ñii dañ leen war a approcher pour dooleel leen consommer local bravo déglu baax li may wax de xeex bi xeexu <laughs> mm-hmm. mm-hmm. c'est important c'est important les may wax mm-hmm. dem duggante ak ñoom def ak partenariat def ak il ak y a des industriels sénégalais tey am ay hommes d'affaires yoo xam ils sont dans l'industrie de la transformation ni dans les importations les exportations ils sont dans des secteurs yoo xam association bi wala dugg ak ñoom en partenariat parce que président Bassirou Diomaye Faye da mooy lan mm-hmm. mooy suñu koom-koom dafa nekk ci biti dafa nekk ci loxo ñu nekk bitim réew mm-hmm. président Bassirou Diomaye Faye ne dafa bëgg koom-koom bi dellu si ci biir réew mi nekk ci loxo doomu réew mi benn baay ay doomu baay lañ mm-hmm. mooy préférence nationale mooy njariñ lo xam ci sa weewu tànk lay tàmbalee soo ko dem fee loolu mooy Sénégal ci suñu loxo amna association buñ tuddé ACIS, association des commerçants et industriels du Sénégal Mangi ngi ou wa aar suñu Sénégal mouvement bi ñu approché wu ci le président bi nga mon ne président wu association des des des commerçants et industriels du Sénégal ACIS. Mm-hmm. tudd Khadim sila xaw ko nag mais def dama dama def ay enquête man. Mm-hmm. parce que bi leen président recevoir de barki démb ci palais bi xaw ma démb le les patronats ñu dañu bëgg a wàññi dund bi. dem mm-hmm. nañ fa wax dama def enquête kenn fa nekkoon ñëpp kenn ku nekk yaay kan. ma gis ne ci biir enquête bi ñu ci ëpp doole ñii waa INACO waa jàppale ñu ñii ñeneen a ñeneen mais mu am lu ci feeñ loo xam ne xawuma ko woon. ñu ne ma xam ci benn mouvement bu am doole boo xam association la boo xam ne ay jeunes sénégalais yu patriote ñoo ko taxawal di ñafe ci secteur commerce bi ak industrie bi nga xam ne naar yeeg tubaab bi ñoo ko téye woon ba ñoom daanaka fokk fokkati nañ ko ci ñoom li ci ëpp solo mi ngi seen loxo léegi ñu téye ko ñooñu ay nationaliste lañ ñooñu ay patriote lañ. ñooñu dañ leen a war a dooleel. comme comme réew mi nekk ci seen loxo te génn ci loxo naar yeeg tubaab yi. kon ñooñu bu ñu nekkee ci wàllu économie bi di yëngatu ñi nekk ci wàllu associatif bi ak idé idéologie bi ak sensibilisation bi muy mouvement aar seen aar suñu Sénégal dañoo war a lënkaloo il faut que ñuy travailler en réseau li tax njëriñ li mooy commerçant yooyu ëpp li muy dugal ceeb ci Sénégal le plus grand importateur de riz au Sénégal Moussa Fandjaï, doomu réew mi la mm-hmm légui boutique yi ñuy wax naan jàmbur yi ñoo ko yore association bi war na mën a taxawal ay plan de formation en gestion boutique yëpp ak commerce ñu ut ay boutique de référence yoo xam ne ay boutique patriotique lay nekk. imam dag maa dégg loolu laa la bëggoon di wax léegi barki association yi association bi di ko di ko piloter ak les commerçants et les grossistes yi nga xam ne ñoo fiy indi denrées alimentaire yi te mu nekk ci loxo sénégalais yi ñu ut benn label état da koy indi mu nekk label Sénégal France bañ demee ba ben jamono américains yi canadiens yi bëgg jënd seen société. yi Arnaud Montebourg était le ministre de l'économie dañoo taxaw fëgg ci taabal ji ne ñun duñu jagn ay bijoux mhm. il faut que ñu def il faut qu'on ñu def consommer made in France consommer français pourtant ñi ngi union européenne mais dañu jël seen drapeau réew tek ko ci seen produit yi pour que français yi di consommer français pour que ñuy promouvoir France pour que te pourtant union européenne taxawuñu rek naan way ñun ay africain lañu ah, comme ñun ñu koy waxee tuba tuba bi français yi ñoom duñu taxaw naan ay européens lañu ah France day xeex pour taxaw Allemagne di xex ku taxaw Belgique di xex ku taxaw te pourtant ñoom ñëpp ay européens lañ ñun ñu bëgg taxaw ñun naan ñun ñëpp ay africains lañ mu nekk ben ben ben sennel go xam fu waaye neex jaar ñu melna ay animaux non il faut une organisation hmm nañu créer ben label doomi réew mi Nous avons ay boutique de référence avec le label sénégalais doomi sénégalais nous ñu une boutique yi ñu téye boutique Nous ñu jàngal leen ñu gestion Nous bañ ko nous mu am ay succès ñu bañ ko lekk bañ ko gàmmeeg màggaleeg ay jabar sénégalais yi ci association bi nek partenaire Nous formons nous dans la gestion dans le commerce dans n'importe quel qui nous ñu koy Si ci commerce bi boutique référence non noonu lañ koy au niveau industriel parce que ñoo ñi ngi préparer ces jeunes sénégalais commerçants là am nañu doole nous nañu am avons commencé à ci accompagner le projet pour que nous créions une de transformation mais Nous il faut que nous mhm. des agriculteurs qualifiés des mécaniciens qualifiés. des faut faire des formations gratuites. formation effectivement il faut faut qu'on les forme des formations de trois mois six mois un an. Mhm. formation des accéléré des formations accéléré nga am métier ñu dugal la ngay ñu industrialiser réew mi bàyyi suuf si génn li ci ko def ko ci usines yi mu créé ay emploi ñu consommer ko la ko def ñu jaay ko bitim réew mu am mu indi ay devises vingt sénégalais trente sénégalais quarante sénégalais soo leen boolee woon seen doole ngeen tijji ay boutique si koñ secteur bu ne ngeen fa boutique dooleel ko réew mi avancé loolu rek xeex bu noble la te imam foofu lay waxee nationaliste yi ou de ken amatul sañ-sañ ubi boutique sans autorisation Sénégal gépp foy ubi boutique mhm. da ngay am autorisation da ngay demander autorisation préfet sous préfet ak état ñolay wax nga ubi boutique doo ko ubbi boutique bu nek day am numéro de référence chaque boutique day am numéro unique bo xamné kitab la ci ci buntu boutique bi lañ koy taf mhm. boutique Sénégal yépp day am numéro mhm. su amé numéro am lu ñu contrôle des prix lol day tax état bi bëgg wañi gis nga dund bi mu bëgg wañi ni Mhm. tant lii may wax defu ko du ko mën a wàññi il faut que mhm. état référencé boutique yëpp mais Sénégal day gis ku xëy rek ubbi boutique nga gis ku xëy tabax juma tabax juma ak tabax boutique mooy yàq Sénégal da ngay gis ku jóg rek def lu la neex anarchie am réew mënoo faa te yoon yëgu ko état mënoo faa ubbi commerce amul ay autorisation mhm. ubbi boutique képp ku koy def da nga war a am registre de commerce ku ko amul war a ubbi boutique otam dañ ko war a arrêté état bi na systématiser kuy ubbeeti boutique village bu gën a reculé boo koy ubbeeti te amoo récipi te amuloo registre de commerce dañ lay jàpp tëj la def ci kaso bi mhm. état contrôlé yëpp soo contrôlé soo contrôlé boutique yëpp étranger bi su ñëwee bëgg ubbi boutique Sénégal nekk étranger mais balaa ubbi boutique dina dina jaar fi mu ci circuit administratif bi daañu xool ndax sénégalais la wala étranger daañu ko xam mhm. dolli waale que transport bi tamit et même que transport bi. secteur yooyu yëpp. mën nañu ko nangu waaw ah. merci. merci dañoo mës a am état bu sérieux ay état wu sàcckat lañ mës a am. mais bu ñu amoon état yu sérieux yu liggéey yii yëpp rek la secteur li may wax dama ko wax ci wàllu commerce ak boutique de parce que moom la ñuy wax tey mais secteur yëpp laa wax ñu. formalisé ko ba nga xam ne bala nga ubbi dara ci benn secteur. di nga jaar fi nga war a jaar ba am papier yi war am. loolu bu ñu ko defee mais bala nga fee bala kenn du teg table ci boutique gis nga loolu bu ñu ko defoon kenn du sañ a teg table ci mbedd di ko jaay ndegam boutique nga sañ ko ubbi sans kii wax di jaay. Mhm. Armé tëjal sa micro s'il vous plaît voilà merci. dañuy régler question mbedd yeeg occupation anarchique yeeg table yeeg cappax cappax yi lépp la ñuy régler. mais da nga gis ko jógee Guinée ñëw Sénégal dem ci banlieue ba looy fa benn kër di def rico glace.

kenn du fi def transport kenn du fi dawal jakarta te am mais da ngay xëy dem jënd sa jakarta teg ko ci kaw tali bi dawal. def lu la neex jakarta dawal ko lu mu laaj. jakarta lu mu laaj. maa ngi dégg benn rumeur ñu naan euh, keroog euh, kii bu daanoo Ndiaga Ndiaye bu daanu woon kii trois roues la doon moytu ba xalam. li ci defal ko trois roues trois roues. dawal jakarta Sénégal da ngay dem jënd rek ñëw teg ci kaw tali bi dawal c'est comme et les boulangeries qu'on donne aux étrangers. imaginez on donne les boulangeries aux étrangers. Les étrangers, vous savez même pas ce qu'ils peuvent mettre dans la farine. Les Sénégalais vont manger ça. Mais ils peuvent carrément empoisonner la population. mais on ne population, on laisse jamais l'alimentaire, surtout à des personnes qui ne sont pas à jour dans le pays. Même ceux qui sont dans les rues ne doivent pas vendre. Aucun étranger, ne, même peu importe, ne doit vendre dans les rues. On ne sait pas s'ils sont vaccinés. On ne sait pas ce qu'ils vendent. on ne sait pas qu'est-ce qui, dans quelle norme ils, mais les normes d'hygiène où ils vivent, les gens achètent ça. Ça empêcher aux étrangers d'investir dans n'importe quel pays à condition que l'étranger soit en règle à l'intérieur de ce pays. On ne peut pas. Oui, mais la vente alimentaire dans les rues, on ne sait même pas comment ça se passe. C'est ce que je dis, la vente alimentaire, c'est là, c'est l'État qui est défaillant. C'est l'État, on n'a pas des États. Souvent, on parle, on parle, on critique les étrangers. Mais le problème, c'est que ce sont nos États, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce sont nos États qui sont faibles, qui n'ont jamais voulu appliquer les mesures qu'il faut. Mhm. Parce que ce sont des politiques. Mon frère, je ne suis pas d'accord. Hein, je suis pas d'accord. Au Gabon, au Gabon, il y a certains, il y a, Moi, je parle pas du Gabon, je parle du Sénégal. Non, non, non, on parle du Sénégal. Moi, je te parle exemple comme les usines clandestines de Rico. Les clandestins, c'est la même chose. Hein. hein. Regarde les ricots qu'on a voulu vendre aux gamins avec des mouches. C'est la même chose. Sauf que ça, c'est fait en interne. Eh ben, les gens, ils, cuisinent en interne. Qui te dit que c'est de la viande de chien c'est de la viande de chat. On ne sait même pas. On sait même pas, ce que les gens nous vendent. Non, à ce moment, on donne des solutions. À ce moment, on est en train de donner des solutions. non, mais moi, je ne mélange pas. Je parle de la manière dont c'est fait clandestinement. Si la personne est à jour, il n'y a pas de problème. Même il y a des Sénégalais qui la jour. on est en train de donner des solutions par rapport à ça. On est à l'état des solutions. Même Mais je ne parle pas de gens, je parle de clandestinement. Moi, je parle de l'anarchie. Il y, a des Sénégalais qui sont dans l'anarchie et dans la clandestinité. Tout à fait. Justement, c'est la même chose. Hein? mais mhm. ça c'est un autre problème ça c'est un, problème de contrôle des services d'hygiène et tout ce qui est donc service de contrôle de qualité de nos aliments. Ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas seulement réservé aux étrangers. Il y a des mhm. Sénégalais qui sont dedans. Ça, c'est mhm. global. Ça, c'est un autre problème. terrain en ce moment. voilà ça on va y arriver étape par étape. salté les que vous saltez encore du étranger il y a des Sénégalais qui sont yu def des un problème d'hygiène. Tout à fait. Problème de prévention, problème d'éducation. Il y a le ministère de la Santé et de la Prévention. Mm-hmm. Il y a donc le, il y a, le ministre de la Famille, il faut encadrer les familles. Le cadre de vie, sans encore koy wax. a une famille 1000 personnes nekk faut ñuy lekk ceeb amul hygiène douche toilette, tilim tout ça tamit mm-hmm. ça c'est un autre problème qu'il faut régler aussi mm-hmm. mais il ne faut pas que oublions ce sujet bi y nous après on s'y perd le reste c'est faisable il faut gérer l'essentiel après le subsidiaire on va y arriver moi, mhm. il faut sécuriser les secteurs d'activité. parce que quand quelqu'un quitte le Mali la Guinée ou n'importe quel pays en Afrique comme le Sénégalais qui quitte le Sénégal pour aller en Europe mhm. il va pas il va pas en touriste Hein. Il va pas ko tax a un Sénégalais koo gis Sénégalais Guinéen nous jóg dem foo dem rek dafa am lo fay outil. Le fay wuti c'est comme comme économique xaalis moo la mhm. pour dund ku wax xaalis wax

man yàlla bokk na ci solution yi may proposé ñu jël loi ci réew mi interdire la mendicité yàlla waat dañ ko war a tere ci réew mi. Nigérien dañu koy a tere yalwaan bokk na ci bokk na ci lii ñuy wax li tax ñoom ñëpp ñu ñëw da nga ci gis ñu bari ñoo xam ne jàng ci alxuraan mu leen indi ñu nekk daara yi foo jógee mu ne laa jóge ñëw ba Sénégal jàng alxuraan dafa tax dafa jël jóge Guinée di di ñëw ba Sénégal jàng alxuraan dooy <laughs> doy na waar de te ñu ne ñu jàng waa ñun ñoo ngi dàq jàng nga ñëw nekk ci daara bi après boo paree génn nekk ci mbedd mi di yelwaan pot boobu ñu la jox nga yelwaan pot boobu moo lay jàngal jaay ci mbedd boo paree ci daara bi ci mbedd mi nga jëm ok yelwaan yelwaan dañ ko war a tere ci réew mi état doit arrêter la mendicité mhm. bordel la c'est l'anarchie il faut loolu gi la bokk parce que mendicité bi yelwaan bi dafay indi ay nit ñu baree bari am na ay pëlu Guinée yu bari xale yi li leen indi mooy dañu ñëw pour yelwaan si teel leen a jàngal xaalis teel leen xale yi noonu la ñu xamee xaalis ak ko ñoo xam xaalis mais mais loolu foofu lay jógee loolu mooy mamel bi loolu moo leen di nàmpal dañ leen di jàngal alxuraan di leen yalwaanloo di leen entraîner training pour que suñu paree nekk ci mbedd mi ubbi tàng na bu yor puus puus jaay benn xottu café sànni fee euh, euh, kërëb kërëb nekk ci mbedd yi liggéeyu mbedd hmm. mi ngi jóge ci jàng alxuraan bi daara donc yooyu dañ ko war a tere réew mi kenn wuri fi nekk di yalwaan wala donc dans les grandes villes dans les grande villes

oui, mais nous, dans les villages, les enfants, quand ils vont aller demander, c'est avec le bol, c'est pour demander du riz ou, ou, à manger. Ça s'arrête là. Ça ne devient pas de la mendicité. Nous, en tout cas, nous, euh, dans les villages là-bas, quand les enfants talibés vont demander, ils vont pas demander manger. Après, ils vont manger. Ça s'arrête là, nous, en tout cas, là-bas. Hein. Même ça, c'est pas normal. Bah oui, mais bon, euh, ils, oui, mais ça, ça fait partie de l'apprentissage. Nous, nous, en tout cas, au Fouta, nous, les, les, enfants, ils étudient le Coran matin, midi, soir. Ils vont juste demander un peu de riz, pour approvisionner, euh, pour nourrir peut-être bétail ou des choses comme ça. Ça ne dure pas plus d'une demi-heure. En tout cas, nous, nous, nous, nous, nos Almoudou. Oui, mais c'est pas normal. Mais oui, mais il faut l'école coranique, c'est des enfants. Oui, mais, je suis, c'est pas une raison. Moi, j'ai fait l'école coranique, mais je n'ai pas mendié, moi. Mhm. Là, il ne mendie pas. Voilà, oui, mais n'est pas une raison. ce c'est pas notre sujet. Ah bah, à Dakar, je pense que le plus gros problème, il est à Dakar. Quand tu vois des ghosts gosses te demander de l'argent toute la journée, du matin jusqu'à minuit, qui, soit disons, ils étudient, ils n'étudient même pas. Les pauvres, ils parlent qu'ils étudient de minuit. Ils, ils, commencent à minuit, ils ne se reposent même pas. Ils sont dans les rues à 7 heures du matin. Ça, ce sont des problèmes. Le livre, ça, c'est des problèmes. Mais pour revenir à notre sujet, moi, il faut interdire la mendicité il faut que nous contrôlions les acteurs les secteurs d'activité secteurs d'activité nous ñu contrôler ko ba nga officiellement amul ken, amul dans les pays développés amul les pays pour xam ne sañ nga faut faire di fa def benn activité bu lay may ta te autorisation mais imam imam imam surtout les libanais là en ce moment ont xoolee doulins, les beurre bi euh, pièces détachées lépp lu nga xam ne industrialisation la ñoo ko yor les libanais lu ko dalee yarax mool huit mool un ba pare di exploiter nos jeunes di exploiter les jeunes di exploiter les jeunes sénégalais yi ñu commencé dugg nag ci secteur boobu mais motiva motivation libanais yooyu noonu gi nga libanais yooyu mooy laa koy doon di wax nii seen solution moo jafe ñeen gis ngeen fi libanais bu posé candidat yi candidature ni son frère c'est un colonel de l'armée mm-hmm. nationale et c'est un libanais Mm-hmm. yaa ngi dégg wax ji moo tax ma ne mm-hmm. ñooñu pour nga jël nan fi nan leen fay jëlee day métti loo am Sénégal am nañ ko teg boo laajee national dañu am nañ ma mais c'est que lan mooy problème bi fan la ñuy waxee. xaaral même Ali Zeydan bu nekk na. Ali Zeydan Ali Zeydan. waaw fi lañ juddoo fi lañ juddoo sax rek. ñuy wax de. ñuy waxal ñun mooy ñi jóge ci. dëkk yi ñëw di tricher. ñëw di tricher quoi yoo xam ne ay këyit ci tappale pour toog ci réew mi ñooñu la wax. Ah, waaw waaw waaw comme Amadou Ba rek comme Amadou Ba rek. voilà comme Amadou ñun ñooñu la ñuy xeex. donc ñu fi juddoo moom ba waay. voilà ñu fi juddoo màggee fi. ñu dégg gën laa gën laa xam réew mi. gën a ci réew mi booy làkk olof xam ñu la gën a bu may liggéeyal naar boo ko sa gémmiñ. ñëpp la famille Faris Bambey bi lañ ba Bambey tax bi

Moi, je vais te poser une question, à Kenaton. Toi, tout à l'heure, tu m'as contredit parce que tu as parlé des usines clandestines, n'est-ce pas oui, Tu as dit que ça doit être. Moi, j'ai parlé aussi des de la nourriture qui est faite dans la rue, mais qui est faite par des clandestins. Pour moi, ça revient à la même chose parce qu'on ne sait pas ce que ces gens-là ils vendent. On sait pas. On ne sait pas. Mais je suis parfaitement d'accord, oui, c'est pareil, oui. Celui qui fait de la nourriture clandestine dans la rue et celui qui le fait chez lui, c'est pareil, c'est de la nourriture clandestine. On ne sait pas ce qu'on vend, c'est vrai, je suis d'accord. Donc, il faut réglementer tous les secteurs, la restauration, tout le commerce, tout ça, il faut les réglementer. Parce que si tu le réglementes dans le Sénégal, et tout ce qu'on dit là, c'est déjà prévu, hein? tout ce qu'on dit, D'accord. Tout est prévu par les lois. On a mendicité, quand tu vas au Niger, quand tu vas au Niger, la mendicité est interdite par la loi. Elle est juste autorisée pour les personnes qui sont aveugles ou handicapées. Et au-delà de ça, si tu mendies dans les rues au Niger, tu vas de trois à six mois passibles de pire prison. Et, et, eh ben, ils viennent dans nos pays, ces eh ben gens-là, ils viennent dans nos pays. et après, on nous parle de CDAO, libre eh ben circulation. Mais c'est pas au-delà de 90 jours. Il faut interdire la maladie. Voilà. Au Niger, c'est interdit. Maintenant, voilà, merci beaucoup. Parce que nous sommes un passoire, nous sommes un peuple. Chez nous, tout est possible. Le Sénégal est le pays où on peut faire ce qu'on veut. On peut venir de n'importe quel coin du monde et venir au Sénégal s'imposer, faire ce qu'on veut. Mais c'est, je n'ai jamais vu comme je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Niger, dañ fay tere yelwaan ñoom dañuy dugg ci saxaar gi dugg ci oto yi ñëw Sénégal di yelwaan si dugg biir Ndakaaru ci wetu palais ba toog di yelwaan nga ne nañ ko fi jëlee am ñu ne non kenn du ko fi jëlee parce que tradition la aada la kesaan mais du aada ju baax ndax xale l'enfant qui mendie xale bi yelwaan su màggee mooy yelwaan ponkal yi ngeen gis ci réew mi ñuy dugg ci bureau yi di yelwaan di dëgg ay làmba ko fecce ko naan suukaru koo rek président la ñuy jox ñu xaalis mais dañoo tàmm yelwaan. xale. sunu combattant sunu combattant Pape Alé Niang

Nous ñu contribuer à contribuer ci tabax Sénégal bi ñu bëgg il faut pas les faire souffrir il faut pas les torturer il faut pas les rabaisser di leen jox ay pot ñu dem di yelwan des trucs comme ça amul sens tu n'es pas capable de nourrir ton enfant mais pourquoi tu n'as yóbbu si ay daara tu tu rien jur nga doom mënoo ci dara jur nga doom mënoo ko jox mu lekk tu es pauvre t'as rien mais tu fais des gamins t'en fais après tu fais quoi tu es un marabout on a de quoi day jàngi alxuraan

mais su màggee dafay ñaan day ñaan day yelwaat boo teg ci bureau yi gars yi dugg ci bureau yi di ñaan sol seen i gasneer liggéeyuñ xëy ñu fenn di ñaan di way di sàmbay mbayaat di dagg ñu transformé wu nekk ay géwal duñu ay géwal di way di way pour lan am lu ñu lekk parce que réewum yelwaankat la ñëpp ay yelwaankat lañ c'est un pays de mendiant il faut que esprit mendiant boobu ñu dindi ko ci suñu bopp yi dugal ci esprit de liggéey

Pourquoi Pourquoi Pourquoi on aime faire souffrir les gamins dans de On les prépare à quoi À la souffrance Pourquoi Un enfant, c'est fragile. L'enfant est fragile. Un enfant, mm-hmm. mais c'est fragile dans les pays développés, dans le monde entier, dans tout le monde. Que, même les Arabes, Arabes, l'islam, même les Arabes là, de nous torturer ces comme nous. Pourtant, ils sont des musulmans comme nous. Même les Arabes, là, qui partagent le Coran avec nous, ils ne torturent pas leurs enfants comme nous, on torture nos enfants. Pourquoi la solution c'est de créer une école qui est une école sénégalaise il faut inventer une nouvelle école les écoles franco-arabes tout à fait non, des écoles coraniques ils bah, mangent dedans ils étudient dedans ils font des cantines ils s'amusent, ils apprennent, mais ils n'ont rien à foutre dans les rues. Et les week-ends, ils rentrent chez leurs parents. Tu fais un gosse, tu l'assumes. Tu fais ton gosse, tu l'assumes. Tu T'as pas à le laisser entre les mains d'étrangers ou de personnes que tu ne connais pas. Ça, c'est horrible. On a aujourd'hui au ministère de la Famille. Quel est le contenu du ministère de la Famille Le ministère de la Famille créé par le président Bassirou Fay, c'est un beau ministère de la Famille. C'est fondamental. Avant, on parlait du ministère de la femme. Mais là, de la famille. Moi, je suis d'accord. Ça me parle plus, ministère de la famille. Une famille, c'est quoi Une famille, c'est le, premier, le premier cocon de la société. Quand la famille va bien, la société va bien. Une famille, c'est un papa, une maman et des enfants. C'est ça une famille. Il faut définir définisse quoi une famille. Quelle est la responsabilité de la mère, du père, vis à -vis des enfants Il faut une éducation à la fois sur le plan des connaissances ci xam-xamu jang école Waye école c'est aussi la famille il faut que nous créer ben lien entre l'école et la famille Xalé bi bu nekké xalé, ni ngi dox ci ñaari tank. Ben tank bi moy famille bi papa ak yaayam Benen tank bi moy kiko koy ci école bi ki jangale ci école bi ak parents yi dañoo am waxtaan di diso. xalé bi nekk seen diggante parce que xalé bi bu nekul ci kiko koy rek mi ngi ci wajuri bu jógee ci wajuri yi mi ngi ci kiko koy bu jógee ci ki koy jàngal mi ngi ci wajuri kon ñom ñaar dañu war a xalé bi di diiso di waxtaanee xalé bi ci ay jafé jafé ak ay performance am di ko suivre lolu moy enseignement ak éducation Beaucoup. les parents éduquent les les maîtres et les professeurs enseignent ñom ils apportent la connaissance mais l'éducation ce sont les parents des fois l'école le fait mais il faut que le fait donc il faut créer une école qui travaille de concert avec le parent il faut créer une liaison entre le parent et l'école. Il faut réinventer une école avec un programme qui correspond à nos réalités, à, nos besoins en termes d'accès. Casser ay aada ak cosaan yu bari yu bon yu fi fekk yoo xam ne kenn du ko tudd man m'a ko tudd mais ñu def kenn ñemewu ko laal naan nañ fi interdire yalwaan daara yi nañ ko réorganiser gis naa ñu ne woy dañuy euh, bureau au niveau du palais pour pour les diplômés arabes le président l'a fait mais moi, je ne sais pas à quoi ça signifie. Je ne sais pas ce que ça signifie. Les employés arabes, les, diplômés arabes, il y a des diplômés russes, il y a des diplômés japonais, il y a des diplômés chinois aussi. Diplômés arabes, moi, je ne sais pas. Mais, mais diplômé arabe et diplômé français, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Diplômé arabe, diplômés français, diplômés japonais ou anglais, c'est la même chose. C'est La même chose. man man man bu ñu defee li may xaar tey jii mooy li may xaar tey mooy man ñu li may xaar mooy ñu am ñu am une langue nationale. moo xam wolof la moo xam ban euh, langue la ñu codifié ko dugal ko ci njàng mi nit ñi di ko jàng di ko bindee di ko làkk. benn làkk woo xam ne xam nga nit ñi di ci jàng science di ci jàng lépp di ci am ay ijaasa di ci liggéey làkk woowu man laay xaar làkkum réew mi mais ay arabe ki ay français yooyu man benn la naan da ngay daw français bi dem ci arabe bi. parce que nous dañuy confondre l'arabe et le musulman pour nous, arabe égale musulman alors que le musulman <laughs> n'est pas forcément un arabe l'arabe n'est pas forcément un musulman mais nous, ils confondent Beaucoup de gens dara l'arabe n'est pas musulman il y a des arabes qui ne sont pas musulmans donc diplôme arabe pas russe diplôme japonais ne sont pas des musulmans un arabe lañ te arabe lañ mais duñu musulman mais imam donc ñun ba léegi lu ñu bëgg dañ ko war a am mooy ñun suñu suñu jëmduwaay du ay arab du français du anglais dara il faut que ñu am làkk bu mag ci réew mi boo xam ne dañ koy promouvoir di ci jàng ci xam-xam ak science ko ba lépp lu ñu soxla ci wàllu njàng moomu ñu mën ko def ci làkk woowu loolu bu ñu ko defee dafay accélérer suñu processus de développement économique parce que suñu doomi réew mi effort yi ñuy def pour di traduire seen xam seen yëg-yëg ci làkk français wala arabe wala effort yooyu tey suñ ko doon wax ci olof bi ñu nàmp pël bi ñu nàmp wala làkk buñ ko ci doon wax day gaaw temps di ngay perte pour di traduire pour di comprendre ci làkku jàmm temps boobu koy gagné tu vas vite. waaw mais loolu mu ci programme bi loolu yëpp mais en ce moment. mooy li ma la wax on a presque tout inventé mais on applique rien li ñuy wax yëpp ni ci kayit de tënk nañ ko ci ay kayit mais duñ ci def dara. ndax politique guddi mais pas par pas parce que en moment même li ñuy wax ni débat bu ñu doon ci boutique yi soo xoolee tey conseil des ministres bi tay président bi teg waxna waxna wax lu bari ak affaire industrialisation bi ak yenn boutique yi. moo tax moo tax ñu am yaakaar ci ñoom. motax tax ma ne saa yi da ngeen di dem di déglu information yi RTS da leen déglu conseil des ministres da leen déglu ay information ngeen mëna a xam. RTS mom buñ ko déglu légui mom RTS mom boy booy. non légui man instant gouvernement bi motax tax y a de l'espoir maintenant avec ñi ñu fal ñu fal leen ñoom xam nañu mission bi ñoom xam nañu li may wax yëpp ñoom ñoom xam nañu ko bu baax def koy wax fii di ko fàttali mais ñoom xam nañu lii may wax ni ñoom foofu lañ jëm man xam nga ñun dañoo bëri ay ministère yoo xamante ni jàpp naa ne amul benn njëriñ xam nga tey par exemple service d'hygiène service d'hygiène du corps la pourquoi pas mënuñu ko euh, rattaché si si ministère de l'hygiène publique ministère de l'hygiène publique rattaché fa service d'hygiène léegi moom muy liggéey ak hygiène yaa ngi dégg wax ji léegi ñoom xam nga dañoo am ministère yoo xam ne yi fi newoon rek dañ fi indiwaat yi fi nekkoon rek dañ fi indiwaat loolu. du gaaw a du gaawa a ministère de lijjanti bi ministère de am. non amul dama ne man man loolu laa gisoon man ñu ministère mi mi ñu ñu organiser ministère boobu noonu ba pare rek jël service d'hygiène rattaché ko ci. parce que ñun suñ suñ ministère yi fi newoon moo fi nekk rek ba tey ah. intérieur en ce moment en ce moment ñu ngi information yi ñu ngi dugg si mayga yi di dugg si ñuy jaay si mbedd yi. non waxuma la dafa ñu loolu damay ma expliquer li ma bëgg a wax ba pare nga comprendre a wax dafa koor yi dafa am loo xam ne dañ leen war a rattaché ci liñ bokk service d'hygiène hygiène ñëpp xam nañ ne santé la yaa ngi dégg nañ ko mënoon mënoon ministre de la santé mënoon nañ ko fa rattaché service d'hygiène muy liggéey ak moom ñu ànd ak ay médecins di dem fu ñu war a dem di saytu li ñu war a saytu yi lii ñu def ministre de l' intérieur nii mënoon am beneen tur bu du ministre de l' intérieur yaa ngi dégg man ministre de l' intérieur bi man gisoon naa beneen beneen solution bu du ministre de l' intérieur. ministre ministre euh, Idi Idi yow li ngay wax ay yow yow yow ay concept ngay wax quoi ay rhétorique la ay li tur bi loolu ay tur la li am solo du loolu du tur yi xam nga ministère yi bu ñu leen ak liggéey bi ak liggéey bi non mooy li ma la wax xam nga liggéey bi service d'hygiène ñi ngi liggéey temps yi jóg na ñoom ñëpp ngi tax prémisse bi nga am gouvernement bi nga am problème bi volonté politique la du ay tur mm-hmm. parce que ministère yi noo ko mënti tuddee amul njëriñ xam nga am njëriñ bu ñu paree ndax ñu ngi liggéey ou duñu liggéey loolu moom njëriñ mm-hmm. ki leen di liggéey kooku mooy kooku moo war a jub a baax mais doo ko mën tuddee lii gouvernance parce que ministère yi boo ko créé ba nga fi par décret dafa am beneen décret boo jël boo xam ne mooy le décret mm-hmm. ministère bu ki nekk day am décret bu ñu jël ne la yow service yi moo moo rattaché wu ki sa ministère loolu loolu la waaw foofu laa foofu laa loolu laa loolu a kon yow yow yow mais si comprendre ma si loolu laa bëgg a wax décret bu leen bu ko bu ko séddale donc loolu lépp lu ñu defee ba noonu te amoo loolu lépp lu ñu defee ma tuuti ma mu lay expliquer loolu lépp su amuloo premier ministre bu mel ne Ousmane ko amoo président bu mel ne Diomaye taxaw mhm. du sotti gis nga tey gis ngeen lettre bi mu publier président Ousmane Sonko nee na nañu ko bind na lettre ministère yëpp nañ ko defal benn plan d' action sectoriel ministère par ministère fii ba gannaaw suba na lépp ñëw huit jours la leen mayoon huit jours la leen mayoon ko programme boo xam ne daañu ko wax ne ko plan d' action yi lan lañ war a def fii ba at mi di jeex ci budget bi six mois yu njëkk yi luñ ci def yeneen six mois yi luñ ci war a def te luñ nekk loo xam ne day tënku ci budget bi nga xam ne wote nañ ko bu budget deux mille vingt-quatre bi parce que

bien lépp waaw soo duggee après wallahi man bu bu man bu ma dégg industrialisation bi muy wàcc si secteur yi ba ñëw si boutique yu nekk si quartier yi laa ne franchement ñun ñoo yàqamte rek ñun ñoo yàqamte c'est hmm. lépp dina baax na si ñëpp jàpp ñëpp taxaw ñu àndandoo organiser teg ay solution hmm. parce que volonté politique bi am na ñu jiite réew mi am ak xaalis xaalis ak xaalis xaalis non xaalis xaalis moom dañ koy am xaalis amul problème xaalis moom xam nga xaalis nit mooy mm-hmm. xaalis ko am xel nit am yéene soo amee xam am xel am yéene am nga lépp xaalis moom xaalis moom du problème bu xel ñëwee rek ak àndandoo rek xaalis day ñëw loolu sa c'est pas un problème mm-hmm. xaalis moom li ñu yor du jeex Sénégal li ñu yor ci xaalis du jeex Sénégal du jeex du jeex ngir motivation mais mais li ñu li ñu si xaalis du jeex boobu noonu laa laa comprendre xaalis. waaw li ñuy dem bëggal lebeeg ñoom seen. Ah, may la ma tur bi ñu suñu xaalis mënuñu leen jàpp ñu jënd xaalis. waaw léegi nag loolu li ko waral mooy mooy li ma wax rek 1960 ba léegi amuñu gouvernement ay politiciens la ñu am. imam yoo xam ne dañu leen a tàmmal jox leen ñu seen alal ñu leen di lebal jox leen ñu phosphate bi. jox leen ñi pétrole bi jox leen gerte gi joxleen yëpp ñu yóbbu ko ba ngeen soxlaa ñu compal leen tuuti jox leen ngeen moon moon moon daal di toogaat loolu loolu moo fi am neuf cent soixante ba léegi loolu nag du jeex réew mi li fi nekk ci doomi jeex bis bu ñu ko dajalee te tàmbali nañ ko fii incha allah budget deux mille vingt cinq bi ci jot dèjà loo xam ne Ousmane Sonko dina ko indi ci programme am fii ak budget année prochaine année deux mille vingt quatre bi fii lañ fekk budget dañ koy exécuté ngeen gis ci biir budget bi ay xaalis boo xam ne ci biir réew mi lay génne ay niche ay cadeaux fiscaux yu ñu doon defee ak yu baree bari yoo xam ne. loolu nag loolu nag loolu nag lañ. imaam ko loolu soxla nañ ko lool soxla nañ ko lool. imaam daa compris. ñun ay sàcc waaw Ousmane moom li mu war def dina ko def. waaye am dina ko def Ousmane Sonko mënu ko Diomaye mënu ko. Ousmane Diomaye mënu dafa sedd instant bi man bu ma bu ma liiree communiqué sama xol dafa sedd. ma ne ko ñun ñi lu ñuy jooy ñi xam nañ ko def ñoom lu leer nañ nañ nañ maanaam ay cartésien lañu fi ñu jëm xam nañ ko ni ñuy liggéeye c'est méthodique c'est organisé. xam nañ fi ñu jëm te kenn doon xupp. te soo xoolee premier premier conseil des ministres bi lu ñu teg wàllu tabaski bi lañ teg xam na loolu priorité la teg nawet bi euh, comme par exemple euh, nawet bi ak mbënn mi eh, mais sax loolu bu loolu ba euh, live wax priorité yi mooy lii. mooy lii mooy tabaski dañu li mooy bi mi taxal ma nañu nettoyé nañu def oh. pour préparer nawet waxoon ci live bi dañu ba inondation bu mu am. wallaahi nañu préparer tabaski gi nañu préparer aussi loi de finance budget bi ñu war a avant fin d'année bi pour 2025, parce que mooy premier budget.

ba pare tey mu ah, ñëw tegaat leen yeneen secteur indi wàllu si wàllu secteur formel bi mu indi la industrialisation bi commerce bi ah, rigueur liggéey rek amul tubaab ba pare wàññi dund bi mu ne mu ne ñun loolu ñoo ko mën a def ba teg nga xam ne population bi dinañ mën a utiliser suñuy produit sans sans sans sans mu metti si ñoom da ngay xam ne ñii lu ñuy def ni programme bi la ñu ko si di suivre pas par pas dinañ yegg si de dinañ yegg si ah, soo xoolee sax soo xoolee sax majorité bu bu leen doon jéem a euh, gàllankoor en ce moment tey Abdoul mbo barki de xaw ma démb xaw ma barki bi am Abdoul Mbow bu mu bindee communiqué dafa dafa dafa modéré dafa dafa wàññi température am nee na pare na pour ñëw. ñoom pare nañ pour ñëw négocier ak Diomaye. dafa am dafa am ay enjeu dafa am ay enjeu yoo xam ne boobu. rek ah. dafa am bëgg expliquer fii rek ñun lu ñuy dund fii koi mm-hmm. loolu la rek parce que bëgg naa bëggoon naa dugg bi sànq mais dafa fekkoon live bi xat quoi mais maa ngi doon déglu rek. ñun instant man man mii fu may waxee maa ngi Saint-Louis quoi Saint-Louis laa nekk fa laa dafa am sànq da ngeen doon wax si dund comme Guinée ni ñu dundee fii quoi ñun fii suñu biir karce am na benn quartier boo xam ne ñun sax ñoo ko tuddee lool dem na sax bu ñu ñoo ko tuddee lool Guinée ko tuddee ndax nuñ fi mel que ñoom dem na sax ba ñun fu fu ñu fubalee ñoom dañuy ñëw di xeexee ñun. parce que ñoom dañu naan ñoom dañuy ñëw football deux jours ñoom ñu football deux jours nga nekk sa biir territoire quoi biir Sénégal yow nga dem ba yeneen ay étranger ñëw di xeex yow sa terrain naan da ngay football dañ lay dagal jour bu ngay football yow tamit ak jour bu ngay football ay jeunes comme ñun. demoon sax ba ñoom dañoo réclamer seen chef de quartier boobu xam ngeen ni ñooñu instant moom. xaw ma naa na lañuy xeex du yomb nag xam naa ne loolu moom jeunes yi ñun jeunes ñoo si war a taxaw war na si taxaw xeex si bu baax a baax a baax waa Aliou waaw yow ban solution nga gis gis ban solution nga gis mu gaaw ban solution nga gis ban solution mu gaaw solution rek instant yi moom ñëpp xam nañ problème bi solution rek ku dugg rek ngir yàlla war a suuli joxal solution rek joxal solution man man benn solution laa kii ni lu euh, imaam doon sànq rek carte d'identité il ñu changer mise à jour euh, de l'appareil numérisation digitale et récupérer toutes les les pièces d'identité euh, fictives. Euh, qui ont été donnés à, euh, à d'ordre électoral qui durent entre 2007 et 2024. Pour moi, c'est ces pièces d'identité-là qui euh, ont bénéficié beaucoup l'étranger dans notre pays, qui, de façon, qui ne sont pas valables, hein, qui sont fictifs. C'est même pas des ah. papiers euh, valables, qui sont fictifs, qui n'ont ni acte de naissance avec ton père et ta mère. Alors tout ça doit, on doit être récupéré et euh, justement, mhm. on doit faire la mise à jour de l'appareil et demander euh, les extraits d'acte de naissance du père ou de la mère jusqu'aux grands-parents. C'est tout. Et mhm. de certificat, mais je pense que le certificat, il doit être protégé par, euh, par le gouvernement parce que beaucoup utilisent le temps spécifique qui est fait avec euh, qui est vraiment protégé par les empreintes ou par le gouvernement, où on saura que personne ne peut toucher et euh, qui devra être utilisé de cette manière-là pour pas que les pièces d'identité soient fraudées. Parce qu'il faut que même si on refait nos prochaines pièces d'identité, il faut que les pièces d'identité soient protégées, où personne ne doit avoir accès, ni même les étrangers.

loolu. loolu war na si mën a am ay moyens yoo xamante ni comme que yow laa laaj moo ko doon sécuriser ci naka ci naka solution rek solution rek ci naka sécuriser ci naka ci naka. numéro numéro waruñu ko waruñu xam ne numéro bi am na ku am na ko ko yor ba pare ñu jëlaat di ko jox keneen. Hmm, d' accord d' accord d' accord d' accord. numéro nit xam nga ne numéro bi am na am na mais nga effacé ko dem jox ko keneen. léegi loolu kan moo ko kan moo koy def agent mairie bi ah agent bi. ñom ñoom ñoo def parce que ñom ñoo ñoo dañ leen a. agent mairie mo koy def. ñom ñoo koy def agent mairie ñoy def lolu ko su ñu jox xaliss ko su ñu jox xaalis am ñoo xamanteni mhm. ay étranger dañuy ñëw duñu indi ben papier da ngay ñëw jël ben 10000 francs franc jox ko xamanteni mu ngi ci biir agent euh, mairie bi mu ligg. lolu loolu léegi léegi responsabilité euh, agent mairie bi la wala responsabilité euh, président de la République. loolu moom agent mairie mo def mais lolu nguur gi moo si war a taxawaat da si war a taxawaat parce que instant bii nii moom xam nga ñun ñëpp ñun ñëpp ñu seetlu nañu seetlu nañu moom instant bii nii fépp foo xamante ne lii moom ci wàllum réew mi la jëm ñu ngi koy defaraat ba mu baax lépp mu ngi nekk en règle ku si koo xamante ni yaa ngi woon foo xamante ni yaa ngi fay def loo xamante jaarul yoon yaa ngi yaa ngi reculer. Ah. xam nga bii ñëw nii moom. loo fi def ah. soo si feeñee am nga sa am nga problème. mais ah, mais la la Euh, c'est Nadia. Oui. Bon, elle m'entend, est-ce que? Oui, oui, je J'ai vu que le conseil des Bon, j'ai lu le conseil des ministres, hein, le rapport du conseil des ministres. Mais sur, sur la question des étrangers au Sénégal, je vois que c'est pas toujours, c'est pas encore euh, mis sur la table. Euh, tu penses que c'est un laxisme de l'État ou bien l'État... c'est un laxisme. les étrangers doivent être pris. c'est un réel danger au Sénégal. Mais bien sûr, tout étranger est un intrus dans le pays. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Quand tu vas dans tous les pays du monde, euh, euh, euh, tu dois d'abord, tu d'abord protéger tes, citoyens. Tu dois d'abord protéger les Sénégalais. Ça, c'est à tous les niveaux. C'est, ça, c'est une demande nationale. Ça, c'est tout à fait logique. Dans quel pays tu vas voir, c'est l'anarchie totale. Tout le monde fait ce qu'il veut dans le pays tout le monde rentre. On ne sait pas qui rentre, on ne sait pas qui sort. personne n'est identifié, quoi. Tu rentres, exemple, en France, tout le monde rentre comme il veut. Rien ne serait sécurisé. Imagine. Imagine déjà en Europe le mal, comme ils ont du mal à gérer le flux migratoire. Alors imagine-toi au Sénégal. Encore le Sénégal, c'est petit. On peut régler ça rapidement. Effectivement. Mais c'est partout. C'est pas que Dakar, c'est même dans les villages. Tout le monde rentre par les, par, par, par par, à partir de Kolda ou à partir de Tamba vers Kédougou. Tout ou par la Mauritanie. Tout le monde rentre comme il veut. Alors que la Mauritanie, elle, elle a sécurisé ses frontières. Pourquoi nous, on pourrait pas sécuriser, pourquoi nous, on pourrait pas sécuriser nos frontières? Franchement. soo fay uh-huh. dugg huit heures huit heures nga nga jéggi bi huit heures am na lu muy dem mu nga fa nekk ba quinze heures fekk génnagoo yow génnagoo seen kii nii euh, seen poste de police yu nekk foofu rek si biir kii nii barrage bi noonu. Uh-huh. soo jaaree Rosso Rosso nga jugee nga jàll de nga yëg si oto di nga passé fa presque ay vingt postes yoo xam ne dañ lay dañ soo eggee juste da ngay dem da ngay dem ba ambassade. carte consulaire da nga koy wut toogoon nañu ay trois ans yoo xamante ni séjour arrêté woon nañu daaw dañu toog ba benn instant dañu woo dañu woo ñëpp ñun leen xëy yéen ñëpp la dem leen ngeen wuti euh, séjour ñoom premier euh, instant boobu dañu ni ñëw leen dañ leen demay séjour pour ñëpp nañ dem wuti séjour si lañ dem Sénégal yëpp dem wuti séjour. dañu naan hmm, trois mois trois mois lañ may trois mois lañ leen may yoo xamante ni mun nañ leen may séjour. ngeen ñëw defar seen carte de séjour yooyu dañ leen koy may mais trois mois su ku si defarul carte de séjour. Uh-huh. da ngay xëy defaroo dañ lay delloo sa dëkk. Hmm, d' accord d' accord d' accord d' accord ah loolu moom très bien c' très bien mais à part à part carte de séjour quand même war a am yeneen yeneen yeneen alternative yoo xam ne état bi war na teg parce que bu ñu bëggee jël lépp rek bëgg ko wékk ci carte de séjour tamit te carte de séjour du man du yow la su mooy Sénégal la président de la république premier ministre ministre de l'Intérieur. intérieur. même su nekkul carte de séjour Sénégal mhm. ma gisee man porte dafa yomb trop trop trop. franchement. dafa yomb trop. on a un nouveau gouvernement. on a un nouveau gouvernement. la première des choses qu'ils auraient dû faire c'est sécuriser le pays. ils ont eu cette chance-là d'avoir le gouvernement la première chose qu'ils auraient laissez passer Sénégal laissez passer les nos nos dernières élections elles ont failli nous passer entre la main des étrangers qui viennent voter dans notre pays en masse comme ça. Toi, tu sais que tu as été attaqué. Toi, tu sais que tu as été attaqué au niveau des élections par des étrangers. Mais la première chose que tu dois, les premières mesures que tu dois prendre à la base, c'est protéger les frontières, c'est protéger le pays. Ou au moins, bah. tu, tu, tu, mhm. le mets dans le programme, au moins que nous, nous, qu'on sache ce qui se passe dans le pays. On n'a rien contre les étrangers. Moi, j'ai rien contre les étrangers. Moi, j'ai rien contre les Africains. Être contre un Africain, c'est être contre moi-même. yi muy Podor ay même Guinée-Bissau, il y a des gens qui ont quitté la Guinée-Bissau pour venir voter. On leur a donné des, pièces d'identité fictives. Combien de Guinéens ont obtenu des faux, des faux documents fictifs Tout ça, c'est des problèmes. vous avez bien vu chez Amadouba tous les gens qui étaient venus voter. Vous aviez vu les vidéos qui circulaient. Sa maison était blindée d'étrangers. Euh, Tout ça, c'est pas normal. C'est trop, c'est trop. Qui rentrent dans la politique des gens, qui, qui s'introduisent dans les, dans les politiques des gens, des étrangers qui viennent voter dans notre pays, quoi. Allô? Moi, faut, faut. Mais moi, si tu voyais un, un, Suisse ou un Espagnol, ou j'en sais rien, moi, toi, toi, toi, cet état d'esprit, cet état d'esprit, tu l'as même pas en Europe. Ou voir un, j'en sais rien, moi, un euh, un Hollandais ou un Suédois euh, qui sont énormes en France, où on voit tous les Algériens dire nous on va péter vos élections parce qu'on va élire un, un, un, un, président un président algérien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en France. Mais aussi, mais ça, c'est une attente des violations des droits, des droits. Ça, c'est une violation des droits humains dans, dans un pays. Ça, ça, ça ne devrait même pas exister. Et quand on vient nous parler de ça, ça nous traite de xénophobes. Mm-hmm. Des gens qui n'ont rien compris à la vie, au fait. Mais ma je peux te poser une question. Est-ce que tu as, vu, tu as, tu as vu un droit, un droit humain qui a été respecté ici au Sénégal Aucun. Est-ce que tu veux m'en citer une Aucun, aucun. Très bien. Donc, il faut aussi savoir que... nos, nos pays là, nos pays. Tout est corrompu de toute façon, tout est corrompu. Tout est corrompu. Si mhm. c'est pas maintenant que ça change, le pays est corrompu de la moelle épinière et de partout. Et ça m'étonne même pas que c'est le, c'est le gros bordel dans ce pays, au fait. Lay, xoolal gisa qu'est-ce que sooy dugg soo jaaree Roos soo duggee fii soo soo jaaree Roos doo fa doo mus a am kayitu Mauritanie fekkee fekkee sénégalais mhm. nga nga jaar Roos wala benn yow beneen dëkk nga jógee nga jaar seen frontière doo mus am foofu kay parce que ñoom soo sooy dugg ñoom da ngay teg say empreinte ñu xam ni yow moom étranger kayit bu lay jox bi dañuy dañ lay wan yow instant bi ni dëkk bu nga nga xam ni nag dëkk bi yow fii mu nga fa am carte d'identité mm-hmm. parce que man gis naa benn xale bu jëm boo xamante ni moom mu ngi fii Sénégal moom Mauritanie la jógee woon bu muy jóge Mauritanie amuloon papier ay papier Mauritanie ba mu ñëwee fii Sénégal nag bëgg a dellu dem jaar Rosso ba ay mbokkam wok ni ka ñëwal defar say papier ba mu demee fa ñu xool ñu nga yow instant bi da te yow Sénégal nga jóge woon te moom dafa ñëw fi am fi ay papier ba mu papier yooyu la demee Mauritanie ba moo tax mu jaar Rosso ñu ne ko yow instant bii nii yow jokkoo fi yow sénégalais parce que nga jaar Rosso say apprenti mu ngi nii lépp ñu won ko lépp moo tax mënu am fa moo tax instant bi soo très bien c'est très bien. xam nga xam nga ñoom instant bi ñu ngi sécuriser seen dëkk ñoom ñu mu mel ñoom ñu ngi sécuriser seen dëkk gis nga Guinée ni ñu mel fii Sénégal. Mm-hmm. bi daay nekk Mauritanie nekk naa fa ay deux ans la wax ni ñu nekkee fii Guinée mu nga fa compte su fa ne soo fa gisee fa nga yem parce que xam nañu dund boobu ñu dund boobu nekk foofu ñoom suñ fa demee ko dund parce que Sénégal dund. fii nga mën a dund dox heure bu la neex def lu la neex génn lu la neex defal kenn du la wax dara gis nga Mauritanie fee Sénégal lu ñu fa am na loo xam ne du leen ko may seen wàll si dëkk bi dañ koy def. sa mhm. séjour dañ koy dagg sa lépp dañ koy dagg ko deful suñu la jàppee roosan lay sandi ñoom suñuy dëkkandoo lañu.

est-ce que tay gouvernement bi est-ce que pour pour régler problème est-ce que parna pour régler parce que booba légui ñi ci wax ñep ñi ci wax porter plainte ñen ñi wa général dañ ni carrément bu ben télé tek wax dans le sens nga wax ci étranger yi wala nga wax ci ay carte de séjour dañ la koy Sénégal boko fi automatiquement dañ la koy téré wa général moy bu ko ben télé bu ko léegi est-ce que dëkk boobu pare nañ pour régler problème bi. gis ñi ñu fal fii jeunesse moo génn si mbedd ba ba ñi ñi xam ne ñii jeunesse bi ñoo leen fi teg gis ñëpp suñu taxawee sénégalais yëpp taxaw ni xe ñun lii bëgg suñu réew daañu si def jiw parce que lii nii instant bii nii ñun ñi ñoo xeexoon ba changé système bu fi nekk ñoo xeexaat ba changé suñu dëkk ñun suñu dëkk ñoo ñun lu ñu metti fii ñun ñoo génn ñoo war a génn ko ni waaw lii daf ñu metti lii dafa bëgg ñu changer du génn xeere mais suñu génnee rek wan leen ñu leen instant bi lii bëgg nañ moo changer daañu si taxaw même suñu nekkee benn fan ñoom daañu si bàyyi xel daañu ñi moom il faut ñu xool lii ne luñ si def luñ si def pexe su fekkul ñu fi nekk ñi bunti ñu fi nekk ñi moom instant bii ni moom fii moom war na leen gën a sécuriser ba nga xamante ne du ñëw dugg rek am am seen mm. papier dafa war a doy chaque instant di nga gis kuy joote naa samay papier yàq nañ ko si samay papier yàq nañ parce que xam fii moom dëkk bi da ngay gis ku defar ay papier defar carte d'identité ñëw toog day toog sax bu day gëj dem mairie su demee mairie ay euh, certificat de résidence lay defar pour rek dem xool ay kii SRM day rar da ngay demaale ñun la sa joxe nañ mooy instant yow say papier da nga yaa ngi yore ay carte d'identité mais yow kayit yu nga yore yëpp nga ko perte dañu sécuriser suñu dëkk moo gën am nañu étranger yu fi nekk nañu xool nu leen di ne fii ñëpp si jàmm. Pël dem na. ok naa di Pël moom naa nelaw na sax ay waay. Tu m'entends là Je t'entends. Ok. Ben, profitez pour faire passer le message, quoi. Euh, on espère que nos autorités euh, prendront leur, euh, les, responsabilités